bon vous euh, man li ma gëm li ma gëm laay waxaan ah, li ma gëm laay wax mooy euh, euh, est-ce que le Sénégal était vraiment prêt excusez-moi pour organiser en fait la Coupe d'Afrique des Nations en 2027 ça c'est une très grande interrogation pour man pare wuñu woon et lu nekkoon seen xel sax dëgg moom mooy jéem a naka la ñuy positionné wu pour la CAN 2029 loolu mooy li am parce que soo dee seet li CAF bëggoon mooy deux mille vingt cinq comme ni ñu ko joxee Maroc deux mille vingt sept ñu jox ko équipe bi nga xam te mooy Algérie mhm. waaye dañoo dem ba ci biir gis ne algériens yi dañoo wax gedd moo tax laa CAF Sénégal ne day jéem a euh, euh, proposé wu te sax du lu ma gëm du ma gëm du lu ma gëm je ne pensais pas que le Sénégal était vraiment même prêt à déposer euh, un dossier pour la CAN une CAN ça prépare. Mhm. une canne ça se prépare il y a des infrastructures regardez le nombre de clubs actuellement on n'a qu'un stade on va me dire qu'il y aura les JOJ de 2026 ah ouais mais le JOJ de 2026 une année après il y aura une Coupe d'Afrique des Nations bon man loolu yaakaaruma woon ni c'était même pertinent pour que sax Sénégal déposé une da ngay préparé wu def ay infrastructure teg lépp loo xamante ne soo demee déposer candidature bi dinañ ne ah c'est une bonne candidature mais je vois les waaye ouais, Sénégal c'est classé tel tel tel pour man euh, président de la fédération sénégalaise de football waxuma ko mais jàpp naa ne moo nekkoon choix pour que le Sénégal organise une coupe d'Afrique des nations et je rappelle que ni la CAF suy proposé équipe suy proposé nation pour organiser une coupe d'Afrique a soumettre ak est-ce que pare ngeen wala fédération su ko laajee ne bëgg nañ mu ne ko dem leen ngeen waxtaan ak seen état c'est comme ça que ça se passe contrairement à ce que disent beaucoup de personnes que l'état du Sénégal non non c'est la fédération mooy proposé ñu wax leen wax leen nii ak nii ak nii lañ bëgg organiser cette même fédération dem seeti li nga xamante ne moom mooy l'état mhm. ne leen kat bëgg nañ ñoo jox kaan atum nangam atum nangam nii ak nii ak nii